barhaamu baun waraun alifun thumma haa mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan ba France Euh, beneen ba xëy na Afrique loolu jëlaat na ko ndax mooy moo moo kii xam nga rek dara bu xewee ñaare ñu bari dañ ko naqarlu rek noppi ñeen ñi wax ci salon yi mais bàyyi dafa dafa toppatoo maqaal ba bañ bu njëkk ba ba gis ba bu bu ñaareel ba ba mu gis ko ba gis yem ca wax mu daal di mu daal di bind sama tontu tombé nag sax den dend naag hmm, benn lettre bu ko ponos apostolique bi nekk cees bindoon ci arab ci arab lañ ko kii yoon ci ci kii ci ci fe ci euh, ci pa ci ci fin ah, di ko di ko ndokkeel ak waxaale ci nag yu ëpp moom itam naan lu tax euh, duñ jaxasoo lu ñu war a ragal ñoo ñoo ñoo bokk benn diine ñoo bokk luñ fas nag nag nag nag wax wax wax wax bàyyi xaar moom itam ba kii mu daal koy tontu ñoom dañ dañ bindoon nit ñi ci ci julli gi bàyyi nag toog ba ba nativité mu mu tontu ko moom itam ci arab di ko wax nag kon tam dama xaabu léegi nangu nangu nangu ba kooku dañ ci ñëw xëy après kon nag pour wane rek ne maanaam di jàngale lislaam di yee nit ñi di ñaan ak a jihaad terewul mi ngi bàyyi xelam comme euh, intellectuel baat bi boo leen ko xeeb waaw di toppatoo yi xew di ci def itam loo xam ne dana fi des parce que ba mu koy bind atam xam nga ne dina dugg ci thèse de doctorat d'état ci dugg ci université yi ak yu demee noonu bismillah daa ameel sa bu ndax amee ndax bi bi beneen tàppee la woon moo tax foog mu am yàq mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wa shukru lillah wa ma bikum min nicmatin fa min allah wa ma tawfiqi illa billah wala hawla wala quwwata illa billah wasalaaman ala abdihi sayidina muhammadin daf koo tëb sayidina muhammadin daf koo tëb yokkal xayri xalqillah wa ala alihi wa sahbihi maa qaala muslimun rabbi allah tàmbali bi rek xamee ki ci kii daf ne wax leen lu leen neex ci yàlla laa jax tàkk man de alhamdulillah sant yëpp yàllaa ko moom wa shukru lillah ba tey itam bu ñuy jëf jëfi sant itam yàllaa ko moom wa ma bikum min ni'matin fa min allah xaraan na ko xewal gu ngeen am itam gumoo gumu xam leen ci yàlla la jógee wa ma tawfiqi illa billah alquran la moom itam tawfiq gi ma yàlla dëppaleeg la ma bëgg moom yàlla rek la mën a amee wala hawla wala quwwata illa billah alquran la ba tey pexe mu am njëriñ mu tiir kattan lu am njëriñ ci yàlla rek la mën a taxaw wasalaamaani mooy salaatu ak salaam ñu mooy asalaatu xam nga arab moom dañuy bu ñaari baat bu góor ak bu jigéen àndee dañ koy boole góoral leen ñoom ñaar duur xeeb jigéen de seen lu xabee mel noonu ah jaama bi yàlla bi xam na ni chrétien lay waxal muy fàttali ni yonent bu for bu kat jaama bi yàlla la sayidina suñu sangu bi muhammad xayri xalqilaay kii gën ji bi dee fi yàlla yi wala ali ak ci ñooñam mooy ñu nga xam ne daganul ci ñoom ñu lekk sarax wa sax bi ak saabam yépp nag julli ak salaam goo xam ne dafay des maa qaala feek mi ngi wax muslimun ab jullit rabbi allah kon dootu jeex amma baad fa fi kulli xayin banu saad léebu arab la gàddu goo gis rek ay sëtu saadoo fa du suñ saadu de ibnu abi waqaas déedéet dafa am benn waay boo xam ne dafa jaxase woon yëf yenam koy solee arab ya ne awradaha saadun wa saadun mustamil ma hakada ya saadu tuuradul ibil dafa defe mbir ma indi gëléem ya ca nam ko indee du noonu mu mujj nekk lépp ku indee gëléem noonu soleem bi mu ba noonu ñu ne ko du noonu de ñu def ko nag lépp léegi bàyyi ne wa fii kulli xayin banu saadin maanaam waa ji li mu wax war lañ ko wax ne ko du noonu ko defee du noonu fa inni waqaftu ala xitaabin mufaajiin katabahu raisu asaqifati Dakar Lefebvre mu ne gis naa benn article mooy maqaal dañ ko wax maqaalatu itam boo xam ne dafa daf ñoo bett ki ko bind mooy ki jiite usxuf làbbi ci usxuf Dakar yëpp Lefebvre mu ngi tuddoon waaw Lefebvre daal doy na wa nacharathu majalatu faransa almasixiya mu ne maqaal ba mu ko bindee revue bi ko tasaare mooy faransa almasixiya fii chahri décembre al jaari nga xam ne kon à chaud la bàyyi jóg mu ne ci weeru décembre wii nga xam ne ci lañ ne jógaguñ ci 1959 al miladiya bi munasabati iidin milaadin muxtaram muxtaram dégg nga de li muy attaque si attaqué wax ju yiw lay wax ci occasion wu euh, feetu euh, chrétien yi buñ xormaal bi feet gi lañ xormaal xitaabun xitaabin yamassu karaamata al islaami wa karaamata al watani ani ifriqiya sawda nee na kii ba article ba ba ma ko gisee dama gis ne day laal euh, karaam ak lislaam mi tooñ mi tooñ réew mi mu ne maa ngi ci jublu réew mi ba ma ko waxee Afrique gu ñuul gi laa ci jublu waqad am antu nadara fi baadi fiqraatihi mu ne xool naa bu baax xool bu jot ci yenn phrase ya ca nekk maanaam yooyu ñëw ko ca métti gën a métti fa ida hiya fi gaayati taassubi wa taassufi ma gis ne yii jumla day jéggi na dayoo ci cot cot loo jéggi na dayoo ci itam euh, ëppal maanaam teg sa bopp ci ci wax ab coono boo xam ne jaru ko وأبدأ في رد تلك الفقرات بذكر شيء من ay ذكر الحكيم pour tontu nag man delloo wax yooyu maa ngi commencé jàng ay aaya bu njëkk bi mooy qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tashaa'u ba ca qadir yàlla doon waxee ne qul waxal yow Muhammad ne allahuma yow borom turi sell yi ak melo rafet yi malikal mulki yow mi aji moom nguur lépp tuuti danga may al er mulka nguur man tashaaw ku la soob moo tax nga mën a dégg yenn fal wi wa tanziu te ngay nangu rocci al nguur mi man tashaaw ci loxoy ku la neex wa tuizzu te ngay teral ba mu am dëgër man tashaaw ku la neex wa tuzillu te ngay toroxal man tashaaw ku la neex bi di ko alxayru yiw yëpp bi di ko aji nekk la ci sa loxo innaka yow yàlla amul werante qadirun at aji àttan nga ala loo bëgg a def rek mën nga ko muy benn inna al lillahi yurisuha man yashaau min ibadihi wal yàlla waxoon na tam suuf yëpp suuf si yëpp dëndal suuf yëpp ak li fi nekk yàlla ko moom moom kenn ko neex mu doon loolu ko ci jaamu mi waaye nag lu mu yàgg yàgg yàgg mbaaxay mucc <laughs> c'est beneen aaya ba ne min aayaat yi laylu wa nahaar bokk na ci kawteef yi wane màgg ak yàlla ak nguuram gi ba bëccëg ni yi uutuwante wa shamsu ak jant bi wal xamaru ak weer wi mu ne waaye nag laa tasjulu bu leen sujjóot mukk li shamsi ngir jant bi wala lil xamari du caageen ngir weer wi li ñu rëy rëy ak li ñuy wër rek te luñ taxaw wasjulu sujjóot leen kay bu ngeen sujjóot lillaahi ngir yàlla alladi yàlla mi ngi tan xalaquuna moo leen bind in kuntum iyaahu taabudun ndem da ngeen ko bëgg a jaamu booy jaamu yàlla bindal yàlla mi bind jaamu ko maanaam jaamul yàlla mi bind waaye bul jaamu ay mbindeef yu yàlla bind te aay la ba du bi mu ne yàlla moo ne qul huwa allahu ahad allahu samad mooy suratul ixlaas gàtt gém gàtt yépp moo représenté sulus alxuraan yëfari ñoo noonu yonent bi askanal ñu si yàlla ji ngay jàmm ci urus la ci xaalis la ci lan la nee na comme bu ñu laalee yàlla yónnantey tontu fii nag yónnante yàlla moom moo tontu ne ko xul wax leen ne xam nga tëbbat yadaa bi lay bin amul tëbbat yadaa xul tëbbat yadaa te yónnante tontu rek ci ndigal yàlla ko wàcce ci tontam bu ndax li mu doon doon wax yàlla bàyyi mu ne quand yàlla du wax yónnante bi ne ko waxal sa baay parce que bàyyi ko xam na muy jàngale toujours mu ne masla ak yar waxal ne huwa moom allahu yàlla ahadun kenn képp la huwa gi day feddali damiru shani allahu yàlla assamadu mooy kuñ jublu ci mboolee mi ajo te du daw du daay lam yelit jurul kenn walam yulat te juree fukk amul amul baay ak yaay amul doom xam nga mi ngi jëm ci wax ak firi lii ci fii xanaa ayul ayul de defuñ dara lu may xam-xam rek la walam yakun te di ngeen xam sax ca fin ba benn affaire benn surrong ca biir walam yakun te amut loo nekkut ahadun kenn kuf an din maanaam ndend law ñeel ko yàlla amul ndend muy ay muy euh, saar wi nga xam ne tawxiidu zaati moom moo ko gàttal te serne ko bàyyi ne fa bil ayatil uulaa ci laay ji njëkk ji ma njëkkoon a wax qul illahuma maalikal mulki boo ko gisee yataxaqaqul insaanu ci la nit di amee lu ko wóor ne annal mulka lillaahi yàlla moom nguur bàyyi na fii ifriqiya wa gayriha moo xam ci afrique la moo xam ci furut afrique la fu nguur nekk daal yàlla ak moom na wóor yuwalli man yashaau wa yazilu man yashaau mooy fal ko neex mooy folli ku ko neex maanaam yéen fi nekkoon depuis téeméeri at wala lu ko jege bu leen fi pexe mu gudd du ko du ko du ko du ko kii wa kadalika bil ayati saniyati wa ziyaada mu ne aaya ñaareel yi itam anna al arda lillahi yurisuha xamee nañ ci ne yàlla moom nguur ak suuf si yëpp waaye nag yokk na ca ne anna al aqibata lil muttaqin ne mujj gu rafet gi ñëpp bëgg itam ñu ragal yàlla koy am wa bi saalisati aaya ñetteel ji mooy qul wallahu ahad rafdu kulli ma siwallahi mooy rejeté pëgg tàggoo bañ lépp lu dul yàlla sawaun fi dalika al moo xam muy ab biddiw am na ñuy jaam biddiw wal ak weer am na ñuy jaamu weer wa ahra salim mu ne wax dàq na yépp وبالآيات الأخيرة astafirullah astafirullah la tëccu li shamsi la wax ne mooy mooy mooy wane ne duñ jaamu dara lu dul yàlla waxantuma nag faf croix mu ne wa bil ayatil mooy suratul ixlaas ci ngay xamee ne yàlla mooy kenn moo wéet mooy cappa culi mooy ñi jublu ci mboole mi aajo yi jurul kenn juru ko kenn du moromam kenn du nawle bàyyi na wa bi hada yataxaqaqu an albaria taala huwa almannaanu ci loolu nag yooyu pas-pas ay jàng la ci nga xamee ne nag yàlla mooy ki xéewle mën a xéewle lool li ifriqiya wa xayriha yàlla mooy mën naanu ci turam yi mu ne mën naanu tur cër ci tur woowu Afrique ak furul Afrique yëpp bu ku ci yàlla may nga am ci Afrique xanaa du fi nekk rek nag danga gis ci biir ay ay idées yu avancé ci jamono jooju lu yéeme la wa huwa shaafi wal muaafi ñaari toujours ba mu ko bindee ba tey su ma ci egsee dama koy jàngale yooyu parce que fi mu ko dugal yàlla mooy mën naanu pour Afrique ak furul Afrique te yàlla mooy saafara mooy maye jàmm ma xam ne saafara ak jàmm moom mun naa dugg ci lu ne ñun liñ nekkoon feebar la yi ah si bi tubaab yi élif la def lu neex nangam ngay bay doo ko passé nangam lañ koy jëndee buñ demee ñëw nangam lañ la koy jaayee wa bi hada yataaqamunawul muaafi wa li kulli watanin qawmun wa li kulli qawmin watanun mu commencé nag réew mu nekk na leen wër ne am na waa réew ma ñoo ko moom mu ne nit ñu nekk tam am nañ réew ñoo ko moom li kulli watanin a réew mu amul ñu fa dëkk amut nit ñu amul fu ñu dëkk amut kon nag ku ne xam nga fa nga dëkk yem fa pourquoi la colonisation wa nahnu qawmu ifriqiya fa ifriqiya lana wa nahnu li ifriqiya ñun nag ñooy ñi dëkk Afrique Afrique ñoo ko moom Afrique moom itam mooñu moom ku moom dara nag da nga koy toppatoo wa kullu watanin sawfa yaxkumu fihi abnaauhu in ajilan aw ajilan 1959 politiciens yu bëri sax daawuñ ko wax parce que naa fàttaliku Senghor dem Brazzaville ñu tudd fa indépendance benn yoon ñu ne jeex na naa mi ñu ne kii alaku na bàyyi leen ko tubaab yi fi mu baatab indépendance tudd ko fa ci congrès Brazzaville bàyyi ne bàyyi ne li kulli qawmin watanun wa li kulli watanin qawmun mu ne ñun ñoo dëkk Afrique ñoo moom Afrique mu ne wa kullu watanin mbéppam réew soo fa yaxkumu xas na àtte piihi ci réew mooma ab naahu doomi réew ma in aajilan aw aajilan mu gaaw mu yéex indépendance dana dajaloo xam loolu doy na waar boobu am na am na nit yu diine même ci dëkku arabe yi ñoo xam ne wa atiu rasula amri minkum ñu ne tubaab yi ñooy ulil amri minkum te fàtte nañ minkum gi ulil amri topp leen yàlla toppale la bi ak njiit yi ñu ni njiit yi mooy tubaab yi débat mim kum ji nag dafa garaawoon ba am na ku ko mos a laaj ci Azhar benn benn étudiant bu nekkoon foofu jon laaj ko laaj ko cheikh mufti bi te ko ñun dañuy wax ci suñu réew mi naan ulul amri minkum ñooy tubaab yi waaye ko dén minkum la ñu wax de ci julli ñi kay lay mën a doon am tubaab mënul nekk ulul amri ci yéen donc xaaliboona lañ musaytiroona lañ mustaamiroona xam nga idée yi mooy maanaam bu ñu ne bàyyi progressiste la loolu tuut waaw kullu watanin sawfa yaxkumu fiihi abnaauhu in xeex buñ ba mukk daañ gañe mahma taamara aadaul jinsiyati l ifriqiyati ak complot yi noonu Afrique complot yi def yépp du tere Afrique dina jot boppam xam naa chef d'état boo xam ne bi gaa ñi woote non ak wuy ci Afrique dafa doon déng-déng bàyyi ebal na fa nit kooko dem fa ne ko bu mu déng-déngi na na woote woy bii parce que mooy buntu indépendance Côte loolu boobu xissa kenn xamu ko maa xam ka fa baa yoon maa xam guddi gi tey gi fu mu fanaan ci Sénégal فهذا القرن باي يكون في فهذا القرن العشرون تدفق فيه تيار الحرية والوطنية باي نك ne vingtième siècle bi ñu nekk boobu mille neuf cent nangam foofu ci lañ nekk cinquante neuf mu ne qarnul ishron bii duusu liberté ak bëgg sa réew maanaam duusu na fi comme ndox muy dem duus na fi boo xam ne wala yaqifu amama hada tayaari shay'un te amul dara lu mun a téye duus dara mënut a téye ak wataniya fi mu wataniya mooy patriotisme xurriya mooy liberté bu <coughs> njëkk dañ fooga ne communiste yo koy wax cheikhul islam ma koy wax ni fa idan idan la fa idan kon nag al biladu kulluha day feddali de soo fa yetawalla hukmaha ahluha réew yépp danañ mujj doomi réew ma ñoo fay nekk ña koy atte bu dee raïs ñoom la bu dee ministre ñoom la ñoo fay nekk loo lii xew yëpp dana xewi ak ah, jafe woon a wax boobu chef yi ci koo gi dañ daan bayloo nit ñi yoon yi chef de groupe nga xam du dara amul sax statut te ñu fekk ay nit jël bayloo ak seen <laughs> doom yeeg yëpp ñuy benn chef de moo moo moo lu ma tudd ci bàyyi ma gaayam jarut wax mais moo tëkkoon bàyyi mbay ci làmbaram ko ñàkkee ko tegi bàyyi mbay réagir rek mën ko yow yow su sebe ren te fekkut caabi fare la gannaaw bàyyi mbay lay wax de ma damm sama plume bi bàyyi mbay réagir na ko yow su bët sébbee te fekkul la ci ci ci bàmmeel ndox muy taw ci ko ma dogg suma kurus bi Cheikh Tidiane rayal ma diw takal ñaanul sax buggul sax mu dee wax ja wax ja wax ja wéy na loo ku fekkewul bëri ba fekkewu song yow looy tapage bi nit koo xam ne bàyyi may mi ngi ci shababul xadara ci boobu ah, ah chef ah chef de groupe waaw yii yii dafa war a xewi tax bàyyi nag yii seetlu ko rek mhm. ku sawfa yatawalla hukmaha ahluha sawa sawaun kaanu déglu nag muslimina aw masihiyina aw shuyuiyina waaye dafa waxoon ne woo ñu nekk lii ñu nekk lii woo ñu nekk lii na nga na bàyyi ne xam nga réew mu ne waa réew ma daañu ko atte buñ de julit muy julit buñ dee masix yéen ñu masix même buñ dee communiste yoon nekku ci xam nga saa bu ñu bari egguñ ci dé bu ni ñi d'accord woon ci la communiste lañ tam bàyyi lu mu ci moom daf leen di mën a koy jàngal bañ na du nii rek wala mu baleen ci liñ tànn wa shuubu aqwa min alxukumaat yi jumla ju foor la nee na peuple yi ñoo ëpp doole gouvernement yi feeñ na fële feeñ na fële wa shuubu aqwa min alxukumaat fa ala kulli xaal mu ne ko ak lu mën di xew daal xukmul ajaanibi fii bilaadil ajaanibi mada ila xayri rajaatin ak lu mën di xew daal jàmbur yu attee beneen réew mu du seen bos loolu wéy na dootu dellu si mukk <laughs> fa if foofu nag mu ne fa ifriqiya lil ifriqiyin pourquoi unwaan bi nekk ifriqiya ilal ifriqiyin taqrir bi fii nekk fa ifriqiya lil ifriqiyin parce que bokkul ci ñun ñoo moom Afrique te léegi dafa laajoon foo Afrique jëm mën na ko sa yoon mi ngi jëm ci africain yi <laughs> ñun la jëm ala ann tawalliya alxukmi cheyun tawalliya alxukmi du tawaliya hukmin déedéet tawaliyal hukmi cheyun wa tamassuka bi diyanati cheyun axar mhm. mu ne ko tasaax itam indépendance ñu élire la ngay àtte ak mbiram nekk ci diina ji fi mu ne bokkut ñi ñi jiital ñi jiitale kuñ jiital rek kooka mooy àtteegu moo tax bàyyi nekk fa gëm yàlla Senghor nekk fa di masiix yi xeex na ba ba sonn bés ba fa war a jógee rek la la la fa jógee waaw mu ne ko nag euh, tawalliyal xukmi cheyun affaire la jàpp diine di leneen léegi nag mu ne pen rajaana ila diyanati bu dee dañuy wax mbiram diine moom en tout cas xaw ma ñeneen mais hada ilaanu alqurani axiri kitabin jaa min indillah bu ñu waxee diine moom lii la alquran moom déclaré te mooy téere bi mujj jógee ci yàlla yokku ci te beneen dootu yow mu ne ko dafa ne inna diina inda allaahi al islaamu ngay wax yàlla nee na diine bam nangu moom accepté ko mooy diine jébbalu jooju ñuy wax lislaam mu ñëw nag de wun lam yumin bi ilaani alquran lii alquran wax ku ko gëmul déclaré ko ku ko gëmul fa yumina billaahi ku ko gëmul nga xam ne boo ko gëmoon dangay gëm yàlla wax dawoo kama qaddam na comme ni ko waxee woon sànq soo ko deful mu ne yumin bi cheyin la yasmau wala yubsiru kon foog nga gëm ndax mënoo ñàkk gëm da ngay gëm loo xam ne du loo xam ne moom du dégg du gis mooy xiram mooy sëy mu ne jamaat yi loo xam ne jamaat la kom ça nga daal mu ne kunku jamaat min sunillahi te yàlla ko bind loola ngay jaamu yàllaa ko bind ku dee aw doj bu dee ak garab bu dee matière boo defar mu taxaw di estati yaa ko defar te yàllaa ko defar aw min sonil insaan wala li defaral ko boppam nafsihi ka salibi ni ki ni ki croix wa suwari al mujassamati al mujassamati du mujassadati bi yëpp nag baax na mais mujassamati la waxoon euh, ak euh, euh, ay ay statue bàyyi nag xam nga ne fam ne booba nag yaram tànge mu ne allahu akbar mu ne allahu akbar mu ne waman araada an yunsifa ku bëgg a maandu yaarifu rijaala bilxaqi wala yaarifu lxaqa bi rijaal mu ne nit bëggee maandu si ut dëgg dafay xàmmee góor ñi par dëgg gi du jéem a xàmme dëgg gi par nit ñi nit ku nekk ci dëgg nga xam ko waaye nag nit ki rek lu mu nekk loolu dëgg la day jumloo nit waaw boo xamee meloo weex lu weex nga xam ko soo ko xamul nag meloo wu ñu woote ne weex la rek dangay ngay foog ne looluy weex pour yi taarif il xaq taarif ahla xamal dëgg rek xam ña ca ne li mu wax ci lislaam xas ñu ca kii ba la ko bàyyi wax nag boo buggee xam dëgg gi da ut dëgg gi doo seet nit ñi africain lañu wala jullit lañ de seetal dëgg rek dëgg mooy li bay wax bi mu commencé ba léegi mhm. wa man arada an yunsifa yaarif rijaala bil mhm. tax ma xàmme waa ji c'est dafa nekk ci dëgg damaa dégg ne ko nekk ci dëgg da ngay seet ma fekk mu set doo fen ma fekk du fen da da ngay jub ma fekk mu jub waaye nag boo ne woon rek euh, Euh, ku nekk ci dëgg ak nit lay do ah <clears throat> fa rijaalu fi kulli diinin fiihimul kummalu wa naaqisoon mu ne ko nag nit ñi ñoom ci diine jumoo jumu suñ jos ak seen bos am nañ ñu mat am ñu wàññeeku xam ba tey mi ngi koy wax wax yu am teggin hmm? wa in ulxiqa naqaaisu baadi almuslimina bil islaam fa dalika jawru soo xoolee nag di wër ba gis ci ab ruqu ay nit ñu am wàññeeku teñ ne jullit la nga dëgg ci nag pour xas lislaam mu jooju jëf jawroon jàng la wa taaddin tey tooñ wa dulmun tey tooñ wa udwaan tey jéggi da tey tey jàggati du noonu boobu méthode baaxul waaw moo tax man gëmuma gaañ ñi foo dégg tukulóor yi nangam olof yi nangam wax jooju du waxi xam-xam boo xamee ca biir diw moo ngi la ngay wax te nga ñeme ko danga naan diw nangam waaye gaañ yi gaañ yi olof yi nangam ko wax jooju leerul mi ngi man julli ñi nangam wax jooju leerul kan ci ñoom da amul menn mbooloo fen wu mag sax soo ko gëstu woon da ci fekk as tuuti ci dëgg ndoxantuma nag am ab ummatu wa amma ann chiuiyata tuujadu xaysu yujadu islam waa ji dafa ne nag l'islam mooy entraîner communisme ndaxte ñoo bokk yuñ gëm nangu ko la not ñàkk fayda doo kii loolu wax bàyyi na ko nag kanta nag li nga ne chuiyatu man communisme fu lislaam am daf fay am bàyyi na ko fa inna dalika buxtaanun azim ko loolu nag fen wu mag la moom buxtaan fen la waaye fen wuy tiitloo nit te mag dafa rëy fa inna chuiyata ashaddu intisharan fi lbiladi allati lam taataniq lislaam baad mën na ko communisme mi gën a bëri ci réew xam ne dugguñ ci والحق هو أن الإسلام ضد الشيوعية والشيوعية ضد الإسلام muy beneen kii mu mag ma ne ko liy dëgg mooy l'islam ak chuiya du ñu laalante fenn waaw islam est contre le communisme communisme est contre l'islam moo tax li ngay wax moom tegoo ko fenn bàyyi laaj ko nag pour wedem loo ko wa hal chuiyatu fii Europe sababu al islam ndax communisme bi nekk ci dëkk Europe yi lislaam a ko fa yóbbu kalla mu tontu bopp ne ko mukk fa chiiyatu ma taraat fi ifriqiya in faratna annaha taraat fiha illa min tilka al bilad allati ahluha gayru muslimina bul wax gayrul muslimina da nga koy def gayru muslimina faral alif ak laam gi yàq bu mag la soo ko bindee mu ne chiiyatu ci Europe lislaam yóbbu ko ndax lislaam nekku fa mu na nag chuuciyatu bu fekkee ne xew na ci Afrique suñ ne muñ ne xew na fi bu fi amee mun nga jógee ci dëkk yooyu nga xam ne duñu jullit wa bilaaduna haadihi daxalaha al islaam in lam yansha fiha iddata qurunin qabla duxul européen te suñu réew yii réew jullit l'islam ñëw na fi su ma neewul sax fi la soso parce que l'islam bi muy laat egg Madina munawara egg na xabasha ci ñaari hijra dégg nga mu ne moo tax mu ne su ma waxee ne maanaam lislaam ñëw na fi su ma su ma waxul sax ne fa fi la soso ay xarnu gannaawi xarnu bi européen yi ñaata laata dugg suñu réew wa ma daxalata shuiyatu bal wala almasixiyatu yokkal ak wala foofu bal wala almasixiyatu illa baada tamakkuni l européen fiha gannaaw bu fi lislaam yàggee ay siècle gannaaw gi européen yi ñëw fi booba kat la fi Euh, lañ fi door a commencé wax chuiya euh, ak sax masixiya yéen yéen yéen leen fi indi fa ala hada fa taxaruru bilaadi min xukmi gayri ahliha laa yuxaqiqu wujud alchuiyati fiha bal il aks la mu ne ko nag nañ wax ne lu uute li ngay wax réew mi am liberté jàmbur yi ko doon atte jógee fi loolu du fi indi communisme safaan bayam daf ko fi dàq faf ndax yéen ko fi indi woon xam Sénégal dañ foogoon ne parti bi doon wax marxisme léninisme buñ ko joxoon liberté élection yu njëkk am mu ravagé ko jiite réew mi benn député la ñu am bañ ñu ko joxoon wa ama li nga wax nag ne lislaam dafa am dañuy jàmmaloo nit ñi te communisme bi di jàmmaloo nit ñi dañoo niroo mu ne kon jàmmaloo nit ñi nag maa ngi laaj هل بعض الأوروبيين المسيحيين الذين غزوا إفريقيا واستعمروها هم الذين حاولوا استعبادهم أم العكس maa ngi laaj ne lenn européens yi waxul ñëpp dafa maandu ñi nekk ay chrétiens ñi ñëw agressé Afrique xeex fi coloniser leen ñoo jéem a jaamaloo nit ñi wala nit ñi leen jéem a jaamaloo xam nga wax ci leer laaj la koo xam mooy tontu boppam wa in kaana baadu bani l insaan yastaabidu baadan fa hada ilaanu alqurani dusturi lislaam su fekkee nag am na ci àddina bi ñenn nit ñuy ja ñuy jàpp ñeneen ñuy seen i jaam en tout cas loolu nit ñi la waaye nag alquran moom kii constitution wu l'islam lii la déclaré qul yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an la naabuda illa allaha wala nushrika bihi shay'an wala yattaxida baaduna baadan arbaban min dunillah ñun lii la ñu wax ñun li nit ñiy def xaw ko waaye lii mooy suñ dustur ñun e nee na ko waxal ahlul kitaab mooy yahut ak nasaara kaay leen ñu attee suñ diggante ci benn baat boo xam ne ñoo ci yem nañ d'accord rek buñ jaamu lu may allah ki bind yépp te buñ ko utal bokkaale dara wala kenn te itam ñenn ci ñun buñ def ñenee ni ñuy seen yàlla ba aaya ba la ñëwee ne ittaxadu axbaarahum kada arbaaba euh, dafa am ci saaba yi koo xam ne masiix yi la woon bu tuub mu ne yonent bi defuñ ne noonu ay yàlla de mu ne ko ah mu ne ko mu ne leen aaye lu yàlla waral ngeen nang ngeen ba ñu ne waaw daawuñ leen digal lu yàlla aaye ngeen def ko mu daa ah, mën loolu mooy jaamu ga mu ne ko jaamuñ la mën ne ko ankay daawuñ leen aaye lu leen yàlla sant ngeen topp leen ci daawuñ leen digal lu yàlla tere ngeen topp leen mu ne ko loolu mooy jaamu gi loolu lañ ci jublu wa in kaana baadu limtiyaazaati li baadi abnaai aljinsi min muluukin wa shuyuuqin huwa almuabbaru anhu bi isticbaadi nnaasi fa inna alimtiyaazaati fi gayri ifriqiya wa fi gayri almuslimina sawaun min jihati almulki walxukmi aw iddiini ashaddu wa acdamu xataran ala adducafaai walummaal su fekkee nag li ngay wax yaa ngi ci jublu léeg-léeg quelques privilèges yu ñuy defal ci am réew benn benn doomi réew ma parce que kii buur la wala kii sëriñ la loolu nga bëgg tuddee jaamal nit ñi kay kay moo wax la kay yooyu fu mu am ci fudut Afrique ak ci ñu dul julli ñi la gën a bare ci ay buur ci ay ñuy àtte ak sax ci turu beneen diine moo ëpp moo gën a tat moo gën a màgg xatat ci ñu néew doole ñi ak ci travailleurs yi ndax luñ luñ am ña ko jox ñeneen xaala kaatibul masihi mu indil ko lay woo xam ne du ab jurite ko wax beneen chrétien ko doon xul mu ne ko xaala wax na kaatibul masihi benn écrivain chrétien mi ngi tudd tudd tudd turam ngir maslaa mais mi ngi tudd labib labib ariyachi yu riyaash xam mooy baata euh, yëre ci arab mais am na labib ariyachi waa Lubnaan la téere ba mu ko doon waxee ma nga tudd nafsiyatu rasulil arabi yi daf doon def étude ci psychologie yonent bi lam ci xam téere ba bàyyi ci boppam moo jaar Beyrouth jógee jógee aj jaar Beyrouth indiwaale téere boobu ak beneen téere bi Mouhamad Assad Léopold Weiss waa Hongro wa Hongrie boobu tuuboon te bind euh, tarix ila Makka euh, te bindoon l'islam E, bi nekk ci croisée de chemin yi téere booba ci arab docteur Farrukh taari e, e, tarjama ko tarjama bu leer indi ko maa ngi fàttali ko bàyyi dafa daan ci lanam bi ñoom bàyyi mbay toog ci sa mu di leen ko jàngal ci la gis lay wii muy indi tey mu ne qaala kaatibun masihiyun hal uqima xaddul musaawaat fi lgarbi baada sawrati alfaransiyati wa insan kooku moo laajte ngir yu mel nii maa ngi laajte ndax ndax égalité ci Europe occidentale gannaaw révolution française égalité bi ñu doon wax frat égalité ak gannaaw bu ñu déclaré droit de l'homme ndax am na ndax tax na mu am ñu koy contesté muy wax ba ne mooy su maqaala muy wax ba ne ala yazaalu lil muluki imtiyazat amul foofu ba tey ay buur yu falu yu am lu nit ñi amul ay privilège wali ashraafi imtiyaazaat noble yi amul lu ñu leen daral ba léegi ci réew yooyu wali asaabi rotabi wal alqaabi imtiyaazaat amul ñoo xam ne am na ay pal ak i décoration yoo xam ne tax na ñu am lu ñeneen ñi amul wali riyaali diini imtiyaazaat am na nit ñoo xam ne ci turu diine yañ jiite ci lañ leen defale ay exonération ak yombal yoo xam ne nit ñi amuñ ko wali xaasiyati muluki wal ashraafi tafdil ndax njabootu buur yi ak seen kuur yi ak ñi nga xam ne ñooy noble yi ndax ndax amul gënal gënal guñ leen gënal ak luñ leen di jox ci ay privilège amaam al qanunil am buñ demee ba taxaw ci droit bi ñëpp bokk si waa ji mooy laaj alaa yunsaju li haulaai amaam al qanunil am aswaabun gayru al aswaab allati tunsaju li shaabi al miskin waa ji laaj ne ndax ñii ma lim ñëpp du ne dafa mel ni dañ leen di ràbbal buñ demee ba droit bi ñëpp bokk ñëpp war ci yem la dañ leen di jox ràbbal mbubb yu bokk te mbubb yi ñuy jox ndeysaan peuple bu miskin bi waa ji ma wax mu ne inna haulaay la al mukuusa wa daraib ñi ma doon lim ñooñu buñ demee ba war a fay ay du duñ fay tus ay taxe duñ fay tus suma qaala alaa tuxissuuna anna tilka duwal al garbiyata tumayizu fariqan kabiran min riyaali din xamagu leen ba léegi ma ngi doon wax ci Beyrouth ne état yooyu ci ci Occident euh, ci jamono jooju mu wax ñu bëri ci nit diine yi maanaam ci nit église bi ñu ngi leen di beral loxo ndaxte am na ci ñoo xam ne yamliku na sulu sa ardi bilaad am na ci nekk réew yoo xam ne ceeru terrain ya fa nekk ñoo ko moom wa sulu sa aqaratil watan la ëpp ca terrain yi mun a tabax itam ñoo ko moom arduhum waafaatun min mukuusil jumruk lañ moom ci ay terrain yëpp duñ ca fay lu buñ jëndee duñ fay plus-value duñ fay dara yufawna minha wa tuxmalu ilayhim mustawradatuhum difa daaf te lépp lu ñu importé wala ñu bay ko ñu indi leen ko moom dara du ci wàññeeku li yu taajiru bi ziyaada bu ñuy jaay jaay yokku ca wa yajmau zahaban dajale urs xaalis bu dul jeex hada huwa ma qaalahu masihun bàyyi ne ko wax ab chrétien la wa hakaza istibaadu naas bàyyi boo buggee seet kuy jaamal ay nit mi ngi noonu bàyyi nag fal umaalul masakin nee na travailleurs yu ñàkk laf yi wal fallaxuuna al baisuun ak baykat yu wàñso yi yadfauuna daraaiba al mutazaida ñoom ñooy fay impôt yi ñuy yokk muy dem rek wa ruhbaanul kusaala labbe yu tayal yi al battaaluun yi nga xam ne liggéeyuñ fi tous tuwa tuwaffaru amwaaluhum loo ñu di leen dencal seen xaalis yi dara du ci wàññeeku xatta anna li kulli waxidin minhum aksara mimma inda alfi muwaatinin min abnaai chaabi nga xam ne kenn ku ci nekk di nga am lu ëpp li junne ci peuple bi waroon am bàyyi na hada maa daawa al adli wal insaaf wal musaawaat te terewul ñi ngay soow di wax ne dañoo maandu dañoo dañoo yemale nit ñi mu indi nag benn bëyti ndax daf ko doon jéem a kajji bàyyi kajji ko ba tax nag benn wayka noonu laa tahjuwanna asanna minka fa rubbama yahju abaka wa anta la tadri wa anta du wax min haysu wa anta la tadri waajo noonu noon ku la mag bu ko xas ndax mën naa xas sa baay te nekk ko foon ba ban koo miim <laughs> waaw boromam loolu <laughs> yow mën na xam day fen sa doo ko mën a miim moo tax nag man maa xam ci masiix loo xam ne boo waxee bu ma wax ko <laughs> mu ne wa ama taalimu wa tarbiyatu wa thaqafatu lati badalaha rusulu lmasihiyati kama yaddaci lkaatib mu ne nag buñ demee ba ci jàngale ak yar ak culture bi nga xam ne mu ne euh, chrétiens yi ñi ñu yebal ñi ngi koy tasaare ci Afrique comme ni ko waa ji wootee mu ni mu koy prétendre mu ne fa ashratun fi mia bi nisba ila taalim cheikh lislam nañ wax dëgg rek loolu wul lu ëpp 10 pour cent ci li sëriñ si jàngale waaw ci li ëpp ci Afrique fi aksar nawahi ifriqiya allahuma illa ida kaana la taalima illa taalimuhum mu ne lu may nag xanaa buñ ne woon seen jàngale rek moom mooy jàngale wala tarbiyata illa tarbiyatuhum seen yar rek mooy yar wala saqafata illa saqafatuhum seen culture rek mooy culture wa illa bu dul loolu kay fal masajidu juma jàkka yi wal jawaamiu jumaa yi wal madarisu ak jàngu yi lati yudarisu fi al mutatawiuuna yi nga xam ne ñii volontaire lañ fay jàngalee mosoo ji sëriñ daara ñuy fay li léegi day la xew xanaa ñun de suñu sëriñ daawuñ ko fay bàyyi bi ñu jàngale itam dégg ko fay defu adaafil kanaïs loolu kay mu ne moo ëpp fuuf église yi bàyyi ne wala yujadu fi kulli hada musaadatu lxukumat te mbooleem li ñuy jàngale ci turu lislaam ba booba ñuy wax amul benn gouvernement bu ci dugal loxoom bal ictimaadu lmuslimina fi kulli dalika ala allahi wa ala anfusihim ci li ñuy ci li ñuy jàngale yépp ci àddina ak li ñuy tasaare ci culture ak xam-xam yàlla rek lañ dimbandikoo ak seen góor bi xilaafi madaarisi xayri muslimi te loolu wuute nag école yi nga xam ne ñi dul julli ñi ñoo ko taxawal ci réew julli ñi fa hakadal musaawa bàyyi kon loolu xanaa mooy xemoo boog loolu mooy égalité wa muraatu xuquqil insaan loolu mooy droit de l'homme wa laqad sarraxa kaatibuhu min gayri istixyaayin mu ne waa ji nag dem nag ci lu dul benn kersa nag bi ma nassuhu mu ne fa taqliidu topp loo xamul al ama bu gëmm bu bu bu bu sëlmaxa wa tabayatul xamqa topp dof xam ne doo laaj waaji sax fu mu jëm wastibaaru doafaay ak jàpp jaam ñu néew doole ñi hiya taqaridul islam l'islam loolu la fi indi bàyyi indi ko ne fa xubbuka shay'a xijaabun an masaawi bàyyi ndaal waaj wax bëgg dara mën naa tax doo gis yu ñaaw yi ci biir wa buxduka chey xijaabun an xasanaati bañ dara dina tax doo gis taar yi ci biir walihaada xëy na looloo tax wasafa al islaama bi wasfi diini yi moo tax mu melal lislaam ci melo yu nekk ci diineem ji moom fa hum alladina qaalu ñoom ñoo wax ci seen principe ne ad diinu fawqa al aqli ñoom ñoo wax ne diine dafa dafa tiim xel xel mënu koo jàpp man man man moo tax ñu ne sax dafa dafa waa ji gëmmal te topp ma ñoo ko wax ad diinu fawqa al aqli xubban minhum te loolu bañ koy wax liñ bëggoon mooy ni liñ xiyaadi naasilowum gaa ñi topp leen ommatu wala yabxasuuna an xaqaayiqi diinihim pour ñu bañ a gëstu seen xaqaayiqi diine ji bal mu delloo ko nag saaga wa <laughs> bal taqlidun ama wa tabaiyatu xamqa euh, mooy taqlid boo xam ne danga nga mel ni gumba ku topp kuy gis euh, wala dof bu topp nit mu indi beneen bayt ne wa kuntu ida qawmun ida la lu is qawmun ida dañ ci def ak liif wa kuntu ida qawmun ramaw nii ramaytuhum fa hal ana fii da ala hamdaana zalim waaji moo ne woon man ka suma jikko moo doon bu ma aw nit sànni ma sànni leen ma itam yéen ala hamdaan ndax ndax loolu tooñ la déedéet ñu sànni la nga sànni mu ne ne wa in taudu naud la alquran waxoon su ngeen bu bu jibatee rek ma jógaat wal baadi azlamu te ki ko ki commencé woon moo moo moo gën a tooñ mu ne wa baaxi xusaa bi laati yi la des nag ca gol xojam ak caaxaanam ya la yaxtaaju di jawaabin jarta tontu salaamu ala man ittabaal huda maa ngi wax wasalaam waaye nag ci kaw ku nekk ci njub laa wax de moo tax ñiy bind nit julli nan ko salaam ala man ittabaal huda bàyyi mu dañoo déggul ndax kooku ku julli lañ ko war a wax wala adaabu ala man kadaba wala mbugal nag mm, nekk ci ku weddi ba pare dëddu fii xam nga xam nga kii kii affaire la kii affaire la euh, ci signature bi nag lii yëpp nekkul seen nusxa yi li ngeen seen ma bind nii yëpp nekkul seen nusxa yi waaw euh, dafa am lu tax xam nga signature toujours dama ci yeete bàyyi moo signé maa ngi toog Ibrahim ibnu Abdullahi Kawlaxi kooku kooku kii moo ko def Amar Samb après pour parce que moom dafa nekkoon université di di leeral mais Baye Ibrahima Niassal Kaolack loolu la signé dinaa la wax lu tax date bi di 1959 bi ba dina Kaolack xarasa allahu amin cheikhul islam gi ki ko bind ko ci yokk cheikhul islam ki xam kii kii léegi dañ ko defoon ci ab téere saadatu lana am na ñoo xam ne nu mënuñu rafleel turu baay yi te xamuñ nag nit li muy signé moom moo ko wax la ca kaw lañ ko waxal bone ne jawaabu cheikh al islam lu la neex mais su bindee moom bay signé moom ni muy signé rek nga ci war a bàyyi doo mosu dégg gis benn tubaab bu bu bon bu bind ci kii dafay di wax na moom day tuddee boppam cheikhul islam ci Dakar boobu te bàyyi alors man ne ma nag signature mooy waa ji copie en tête moom leneen la moo tax nag euh, ma bugg ñu koy leeral alxaaj Ibrahima sax du ko signé bu njëkk Ibrahima ibnu alxaaj Tijaani la daan signé su ma leen ko waxut si tam xëy na gaaw a leer ca kuusi ba ci 1960 nangam lettre yi nga gis yëpp bàyyi di signé seet ko Ibrahima ibnu alxaaj Tijaani Niass bi sax ñaar du koy wax alors gannaaw gi nag dafa am lu xew. bàyyi xam ne jarul soow xam nga ak tijaan yi pour mooy tariqatan ni maam Alaaji Abdoulaye daan wax ak yu tariqatan al maliki yu mazhaban ndekete mbir mi dana am njëriñ benn bés xam ñun dañ foogoo ne loolu jaru ko maam Alaaji xam nga téeram yëpp buy wax li alhaaj Abdoulaye Niass al jolofi yu watanaan ma lan ak xaw ma ak tijaan al maliki yu mazhaban euh, ak tijaan yi tariqatan al fii nag Baye di bind Alhaji Abdoulaye Tidiane yi ngir tariqa Tidiane waaye nag ti tijaan Tidiane askan la itam ci Chimal Afrique maa ngi am léegi mun naa la woon lettre boo xam ne kii ko benn Fatima Tidiane yi mi ngi nekk ay Dal Bayda kooku tur turam la xëy na sax du nag bi mu naan Tidiane yi bi waxul ne dama bokk ci askanu Seydina Cheikh ci tarixaam la bokk mu am na wax yuñ dégg bérte xóot maay faf di bàyyi sax di ko Ibrahim Niass al-Kawlaxi loolu nag biñ paree nag man bind fii ne tanbihun laysa min aadati cheikhina Ibrahim ibn al-Hajj Abdullah al-Kawlaxi radiyallahu anhu an yusaddira tawqiaatihi bi laqabi cheikh al-Islam raghma annahu haqqan wa sidqan cheikh al-Islam wa barakatun lana mais du ko signé kama annahu kaana yunabbihuna ayaama taallumi minhu an laa naktuba hamzata ibn comme ni ko waaj defee nii ibn an eh, laa <laughs> naktuba hamzata ibn ida wa ida waqaatil kalimatu bayna alamayn waaw ah, boo boo ne boo ne ibrahim ibn abdoulahi da ngay dindi liif googu lu mooy bu nekkee ci bopp satr jàng-jàng rek la moo tax ñu bëri buñ gisaan ibn bu nekk ci diggante nga ne muhammad ibn abdoulahi dañu naan bun fekk xam bun amul ci arab Babou Cham mu ne bun amul maanaam hamza gi ñu fi dindi moo tax ñu foog ne bun la mais ibnu la c'est clair. Mm-hmm. asalaamaaleykum ci benn bi. voilà dangaa ñëw ci kul allahu maaliki léegi. ah waaw ah waaw loolu dama ko ah dama maa ngi seetlu ma ko. Euh, fi radd ci fiqa bi dikri shay mi ay dikri hakim dusturil millat mi nga xam ne mooy constitution wu diine l'islam alladi bi nga xam ne alquran bi nga xam ne laa yaati al baatil min bayni yadayhi wala min xalfi alquran la nga xam ne moom caaxaan du ko jógee fenn nii ci kanam nii ci gannaaw tanzilu min hakimin hamid waaw ah, si si si si ba ba mu kii kii bi muy bi muy bi muy tontu nag lettre la la bi prononcé euh, euh, apostolique ba bi mu eggee ci waa ji ne ko euh, lu tax ñun lu ñuy ragal xam nga mbiram ragal amu ci mu ne ko te te ñun ñoo ñoo bokk pas-pas ba ci bàyyee gi mu ne waaw ne ko kon ne ko kon nag maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi nuyu maa ngi déedéet déedéet mu ne mu ne ah xaar ma wax la ñun li ñu fas su fekkee ne ci nga nekk nag ñu door a xam ñoo bokkam déet ñun li ñu gëm mooy yàlla kan la lii moo ciy tegtale li ñu gëm mooy melo bi lii la li ñu gëm mooy jëfe bi lii li ñu gëm indi tawxiid ba mu kii mooy nag comme lii mooy ñun suñ pas-pas teew na nga nga nekk kon nag fa marhaban bi asri tawxiid fi <laughs> reetaan ko quoi <laughs> wax na ko banaan ko banaan banaan ko alquran bi ñu yàlla may ba léegi ñu ngi koy tudd ci mufrat mu nekk mu nekk mu nekk singulier mu nekk singulier euh, euh, mu wóor na may injil bi mujj nekk anaajil affaire la ma xam <laughs> boobu ñu bëri sax gisuñ ko bàyyi yónnee ko yónnee ko kii pap bee ko yónnee woon de la ko ci waa ji waaw ma ne ko na ngay nga yónnee ko pap bi du la fees am na fa benn marqueuse kii boo xam ne kii protestant yi pronos apostolique waaw. nekk bokkut ak Thiandou bokkut ak kii bokkut ak le Sarr. combat la de combat bu civilisé la mais combat la xam nga temps boobu bàyyi xam nga bàyyi temps boobu si xam si naat yi année cinquante nangam bi dafa bëri luy tuub ci loxoom lool lool lool Sénégal même ay français tuub nañ ko. am na am na chef de garage bu nekkoon foofu français am na yeneen tubaab Abdoulaye Abdourahman Abdourahim la leen tuddee waaw chrétien yi tuub rek waaw ba am na benn benn congrès boo xam ne fexe na ba jot xabaar ya bi ñuy wax euh, rapport yi avance fu lis fu christianisme di avancé fu mu avancé wul noonu boobu ki nekkoon kaw rek dafa ne man de suma ngànt ñëpp xam nañ ko man mm-hmm. ki ki ki ki ma bloqué ñëpp ñëpp xam nañ ko mu ngi foofu mm-hmm. tudd bàyyi bàyyi jot xam ni li ko intéressé rek lay tudd lay toppatoo quoi na lay ko wax di ko nett toujours di ree ki ma gàllankoor mi ngi foofu xam nañu ok wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin